bokk yi gannaaw bu nu sant yàlla bokki jullit yi julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci sunuy diggante ak sunuy moroomi jaam ba li muy wax ne bu ëllëgee ku nar a dem aljanna it dafa am lu ñuy dindi ci moom muy lum ëmboon lum ëmboon digganteem ak mbokkum jullitam walla mbokkum dëkkandoom balaa kenn dem aljanna loola yàlla daf koy dindi ci moom ba noppi mu dara dugg aljanna yàlla nañu ko yàlla dindil fii ba ñun suñu dugg aljanna yàlla na ko yàlla jàppandal tam bañ a am benn charte tomb bi ñuy fastalante tey moo ñu fi dajale muy lenn ci lu aju ci jullit aljuma julli la goo xam ne bis bi mu nekk muy bisub aljuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ay mbóota ngi ci yoo xam ne xeet yi jiitu woon xeetu Seydina Muhammad doon nañ ko wër sonn ca lool ndax yàgg dégg yu ca làqu ci biir yoo xam ne ñoom jàppoon nañ ne mënuñu koo ñàkk ba tax ñu doon ko wër am nañu ko doon dàkk ci bisub gaaw def ko bis boo xam ne bu ñëwee dañ cay def la ñuy tudde ñoom ak jaamu yàlla gu metti goo xam ne lépp dañ koy bàyyee yàlla di dàkk ngëneel yooyu nekk ci bisub aljuma am na ñu ko daan dàkk ci bisub dibéer ñoom itam di ci def ay jaamu yàlla yu tar ngir di ci dàkk ngëneel yi nekk ci bisub aljuma waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na léeg-léeg ñu sédd nit bàyyil ko fa cër boo xam ne bu fekkee woon ba ñuy séddale it mën naa bañ a am lu tol noona yàlla ñu yàlla dajaleek moom ci bis bi mu amit raw goo xam ne raw na ko mboolem moroomam yi ndax benn la ci bisi suñu borom yi waaye suñu borom day tànn saa su nekk day tànn ci mbir moomam lépp waaye day tànn nag tànn nag tekkiwut ne yañ tànnut daa melut nam war a mel waaye mel nam war a mel moo tax ñu boole kooku moroomam di tànn di seet ba ca gën avant la tafdil moom faaw muy am ci mbir moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bis bi bis bu jant fenk bu dul ajjuma rek ajjuma ko gën daal di wax yu bari yu ca xewoon yoo xam ne yépp suñu boroom daf koo waajal ci bisub aljuma yàlla nañu yàlla dajale ak i ngëneelam waaye li ci gën a ràññiku nag ci julli di moom mooy julli gi ñu ciy julli tudde ko jullik aljuma moo ne aljuma am na jullik suba am jullik tus takkusaan am jullit timis ak goggee waaye lu tax ñu tuddee ko jullit ajjuma boo ko waxee ñëpp xam ko loolu it lu mu rawee mbooleem moroomi bisam yi la julli googu it rawee ko julli yi baree bari julli yëpp jàkkaa ca gën rawatina jàkka ju mbooloo may daje téewul mënees koo defe ci kër téewul mënees koo defe ci àll bi ak fu mu fekk nit waaye li ci aljuma rawe julli yi ci des mooy moom jàkk yi ci boppam sax dañ leen di tëj waxuma laa julli yi biir kër yi ci ku sart yi daje ci moom day am ñoo xam ne dañuy jóge fu sore sori fu mel ne diggante bu sori boo xam ne dana ëpp ñaar téeméeri kilomètre naan damay barkeelu ci julli ajjuma barab sàngam ja damay barkeelu ci julli ga te xamuñu ne ku fas ci ak demam di julli ji ci jumaa fasu ci lu dul barkeelu ji lu bari ci yi ñuy waxtaane ak yi ñuy nar a waxtaane ak yi ñu ci waxtaane wut yépp mën na ko raw mu xam ne fu muy dem di fa julli ji ajjuma barkeelu ji wu fa waaye dafay joxe ji faratu suñu boroom su fekkee charte yi tax mu war ko moom mi ngi gàllu ci aw loosam daa war a gëm ne fu muy jaamoo ji yàlla la farata la joo xam ne kenn mënu koo kenn mënu caa wuutu kenn képp koo xam ne daal munta toog ci sa wet di tibb di sex nga xam la muy saf te sexew muy wan nga di ko yëg mu lekk ba suur nga yëg ne suur na nga suuraale ca xamal ne julli ajjuma noonu la mel ci farata yi julli yi képp koo xam ne charte yi daje na ci moom te mënees na cee tudd rek yaar yoo xam ne yu gàtt lay doon yu neex a jàpp yeneen yi cay des mu dem ca waroom xam-xam yam dendal ñu leeral ko ko ba ca jiitu dal mooy bu doonee ab jullit nekk mu kàllaf te dëkk ci dëkk ba dëkk ba am jumaa na mu ware ay waajuram noonu la ko ware am na nag ay ngant yoo xam ne moom it ku dem ci waroom xam-xam yam dendal ya ko gën a jege te seen xam-xam wóor te leer mën na caa am lu ko day sëkk ba buy am ngant yi demit mu xam ci li muy toog lu mu doon waaye képp koo xam daal am nag wér gannaaw bu mu doonee mu kàllaf te dëkk ci ëpp dëkk bu am jumaa wala digganteem ak fa jumaa ja nekk ëpput ñetti kilomètre na xam ne buñ ne xayya ala salaati xayya ala falaaxi moom bokk na ci ñiñ woo su ko yëgee ak su ko yëgut te kat ay ngëneel yu mag a mag dafa am ci julli ji ajuma am lu ñu si junj léegi bokk na ci donte duñ xuus ci lu waral baat bi waaye daal kuy faral di dem di julli ji ajuma mën naa dem ba xamanteeg mbooloo mu bari moo xam ne jumaa ja moo leen di boole te jote nag mag daana wax ne moo jiitu joote waaye des na fa xamee it ne yàlla rek mooy buur ndax ci biir jumaa buñ xasee ba sàppe dana jafe nga xàmmee ci biir nit ñi yi ñuy xàmmante ci seen biir buñ nekkee ci biti jumaa ji mën nga cee bañ a xàmmee kii boroom alal la walla déet bu fekkee ñi julli si ñëpp waaj nañ li leen niñ leen di defee nañ ko ni ñu leen ko sante dana jafe nga xàmmee ci kii boroom alal la ak kii ku amul alal la kii comme ni ñu koy waxee ci yax bu rëy la bokk wala kii ci yax bu sew la bokk wala kii ci lii la wala ci laa la ndax ni ñu koy waajale ba tax nit ñi dafay xàmmee bañ xam ne yàlla rek moo yeyoo mbooloo mi mépp àndandoo jóge fa ñu jóge jël seen itte yépp def ko muy julli ji bokk na ca kuy jóge këram gannaaw bu mu fasee ne barkeelu ji wut waaye day jaamu ji yàlla day wuuji wooteeb suñu borom bu fekkee daa war a sangu bu ko sangu sangu waree mu sangu bu ko jàpp waree mu jàppaale mu jàpp dikk te ñu fàttali ne koo xam ne sangu da ko war du càng du càngaay la ca lay julli jee ajjuma waaye biir njàpp mu ne ci biir càngaay la ca lay julli jee ajjuma su fekkee njàpp mu yàquwut ci biir càngaay bi su noppee mu sol yére yu set wicc yére yu set ci diine moom la lislaam di wax yére yu laab yu laab yoo xam ne dara tëqu ca dara set wicc la ca dolliku mooy su amee gët mu laal ko gët moom la ñuy wax parfum ay dàllam mu fomp ko ba mu set ba daal ci gàttal do nekk koo xam ne ku neex a xool lay doon ku bëgg a gis ku yiw ba boo ko gisee ñeme ko boo ko séenee muy ñëw rek nga xam ne kii ku yëwa ngi nii di ñëw donte jaxasoogu leen noonu la ñuy waajale julli ci ajjuma teewut nag ku waajut woo waajtaay it te sol yére yam yi liggéey it te yére ya set loolu ngànt waaye ab jullit daa war a farlu ci diineem koo xam ne fa muy liggéeyee yére day faral di taq donte la muy taq du sobe su tee jullee jullee ay yéreem lum sàggan sàggan ginnaaw bis ba bis bu dellu si la war naa war a wut ndóbinu boo xam ne daf koy teg ca liggéeyukaayam su waxtu wi jotee mu jóg bu waree jàpp-jàpp bu waree sangu mu sangu ni wékkat ndóbinu boobee sol ko bu dikkee sum mi wékkaat dellu ci liggéeyam lu yomba yomb la ginnaaw kuñ ne kay wuyu kum fonk lu diggante ba gàtt-gàtt dana ko waajal fexe ba buñ ko xoolee ci bunt bi jox ko cër suñu borom moo gën a yaayoo ba wu cër foofu su ko defee nag léegi su agsee su agsee fekk kii xutba tàmbaleegut ci ngir mi ñuy àtte woo mu julli ñaari rakka yi tudd rakka yi ñu nuyoo jàkka ku nekk akum nuyoom am na ñoo xam ne ku leen di nuyu bu ñu leen di nuyu dañu naan ràpp tolloole seen tànk yi yëkkati ay loxo mu jëm ci bopp benn bi ci lupp bi ba bañ ko naan wàcceel sa loxo am na ñoo xam ne loolu ñu nuyoo am na ñoo xam dañ lay dañ koy dañuy jukki ñu nuyu àgg suuf raam ba agsi ci moom am na ñoo xam dañuy ñëw ba ci moom ñu sëgg am na ci ñoo xam dañuy àgg suuf nuyu ko rek noonu ñuy joxe benn loxo téye bu dëgër ñenn ñi joxe ñaari loxo ñenn ñi teg ci yéen cay teg bu dee murit yi dañu sujjoon waaye nag jàkka moom ku koy nuyu doo ko tàllal loxo waaye da ngay julli ñaari rakka bu dee julli ajjuma am na waxtu yu ñu naan kenn du ci julli ñaari rakka ci jàkka waaye julli ajjuma moom bokk gu ci su fekkee tàmbalee gu ñëw xutba su ko defee su jullee ñaari rakkaam yooyu lu mu ca teg ci ay lu ko sob ci naafila mu teg ko ca ba ba ñuy tàmbalee xutba su ñuy tàmbalee xutba it déglub xutba dafa bokk ci waajtaayu julli aljumaa ñu xam ne ab xutba du ay caaxaan loo xam ne ngëneel yi nekk ci dem wuy ji wooteeb suñu borom ci julli aljumaa moo ko tax a jóg mu di ko wuti di ko fa yaakaar luñ ko ne ca la bokk daf ko war a jox cër bu agsee it fekk am ñu ko fa jiitu mu bañ a jéggat am na ku ko mas a def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jéggat nit ñi jëm si ci sàppee si féete kanam yonent bi ne ko diw mu wuyu ko mu ne ko àggal suuf yaa ngi lor nit ñi te mënuñu la ko wax li tax ñu ne gëtt it am na ci ñoo xam ne kuñ dëgmal pexe mu ne dana ko def ba mañ a jàkkaarloog moom loolu it kuy waaj a julli ji aljuma na ko waajal xel bu baax kon su demee ba julli ay rakkaam bañ tàmbalee xutba mu ne tekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñuy xutba ku toppale ab jàmbaraay jàmbaraay mooy xeer yu ndaw yooyu nekkoon ci jumaa jàkka ji bu njëkk wala li ko niru ci ba faw xool portable am ak fay portable am ak lire message ak wala sax may leen ko mu jàll sax di su ko wax may leen ko mu jàll sax di su ko wax te fekk kii xutba mi ngi xutba loolu it ci waxtaay bi la bokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku ñu nodd nodd gu jëkk nodd gu jëkk gi nag bokkut ak nodd gi nga xam ne ci la wax ci la julli ajuma di jote nodd gi julli ajuma di jote mooy nodd gi nga xam ne bu daan rek ñu tàmbalee xut nodd kañ la nodd gu jëkk mooy nodd gu jëkk ga rek gi daan woote tisbaar waaye nag su agsee ci diggante boobu ba toog ba dégloo yonent bi nee na fekk jàpp na def na loolu lépp ba agsi ji déglu su ne topp defal ndànk yaa ngi may gaañ wala xool portable am wala niir montaram képp lam doon wut si yàlla mën naa def du ko am yàlla ñu ci yàlla musal moo tax mu ne yooyu ku ko fonk ba julli ba sëlmal yàlla mën na koo jéggal ajjuma jee mu defe woon loola ak jii mu fekkawaat li fi jaar ci diggante bi ci ay rëcc rëcc yoo xam ne yu ndaw ndawaan la te yëgu ko wala mu yëg ko jégalu ko suñu borom moom fa saase moom day am garantie bi yàlla jégal ko yàlla nañu ko yàlla boole defal. waaye nag am na tëkk yu metti ci yoo ci koo xam ne daa doya dal ñàkkal fayda julli ji ajjuma ba jàppee ko barkeelu kese tasahul alayhi mooy tasaahul ak tasaahul mooy yëgoo ko. faale woo ko joxoo ko benn cër lu dul jàppee ko barkeelu rek su la neexee dem su la neexut bàyyi su ko sa temps mayee nga def ko su ko moyut nga bàyyi déedéet mas nay xut ba benn bis xool xool fii xool fee li sëñ bu mag bi di wax ne ci jël bul xulub suy nelaw sax moom sallallahu alayhi wa sallam ni ni ñun bët yi mooy gëmm rek waaye mi ngi gis gëmm teewut a gis teewut a gis ak xool du benn mu xool xam ne am na ñu ñëwut mu ne cey waji su ma mën a bàyyi li may def doon yaari jëmm dugg ci kër yi ku ma fekk ci biir këram mu toog ma laaj ko lootee julli ji aljuma waxul lenn ngant lu sariya nangu ma taal kër gi ci kawam mu lakkaale ci biir daldi wax ak ñi ñëw ba noppi na leen ku ci bàyyi wut ñàkkal fayda julli ji aljumaa jàppe ko rek barab bu ñuy daja di fa waxtaane xew-xew yi wala waraate kese ba su ko neexee dem su ko neexut bàyyi yàlla dana fab tampon bi nga xam ne kum ko tampone ci ab xolam musiba dal ko alxuraan dafa wax ay xeet ñaar ab jullit mooy kan alladina yuminuuna bil gayb ba agsi ci ulaika humul muflihun muy ñi gëm yàlla te lu ci nekk yàlla lañ cay bàyyi xel di ko ca jàpp xel kuréel ba jàkkaarloog ñoom moo tàmbalee ci inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminuun ndax lan xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gishawatun wa lahum adabun adim yàlla nañu ci yàlla musal dafa wax ne safaanub julit dëgg-dëgg mooy koo xam ne ab xolam tëju na waaraate mënatu ca dugg xalaat ci kawte fi suñu borom bind xajatu ca ndax su ko jubee rek wàññiku ndax day metti ci ab xolam gëm kéemaan ak suñu borom alxuraan ak yooyu yëpp bokk ci ab xolam mënatu koo nangu mënatu koo jàpp yàlla nañu ci yàlla mosoo waaye booy waxit bu ñu koy dégg day jaar ci nopp bi rek jàll ca ba ca des yàlla nañu ci yàlla musal waaye suñ jàkkaarloog loo xam ne kéemaan ak suñu borom la yàlla dong ko man ñu finati duñ ko bëgg a gis tampon boobu muy tamponné nag ba koo tamponeel duñ dégg duñ gis am xolam jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñam jàkkaarloo moytu leen nekkal fay la julli ci ajjuma yi ciy tax a jot ab yoolam te yonent bi laa ci soññee mooy boo bëggee toog ci sàpp yi gën a féete kanam nga bokk ci ña fay jëkk ndax bokkut ak julli yi nga xam ne mën ngaa nekk rek bañ ne xad xaamat salaa nga daagu ndaan ko dugg ci jàkka ji moom jëkk a dem ci jàkka ji dafa am jëkk jëkk fa maanaam kenn ku nekk na mu fa jëkk a demee am na lu mu cay am lu muy rawee ka ko ka topp ci moom ak ko topp ci moom ak ko topp ci moom waaye it yàlla na yàlla musal ci pexe seytaane am na ñoo xam ne dañ naan jër sa yàkkamti ndax xutba boobu daa mën a yàgg nañ bàyyi rek ba mu xaaj buñ dee yëy caaf du leen ko tee yëy buñ dee naan kafe du leen ko tee nelaw ba nga xam ne wóor na leen du yàgg ci jàkka ja duñu fa yàgg rek ñu daal di daagu ndànk fuñ toog baax na bu ko defee buñ génnee naan lu mu doon wax loolu it ci pere seytaan la nekk la bokk dana xañ ab yool bi yonent bi jóge ci teel a dem ca jàkka ja waaye am na ñoo xam ne it dañuy dégg ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ku julli ji ajjuma ku ko fonk diggante ajjuma lu mu fi def yàlla da koy jéggal tax lu ko neex def ci diggante bi xënte woo rek dem julli ji ajjuma rek ne lam defoon lépp yàlla faral na ko ko yàlla mën na ko de waaye su doon loolu mu yomb ba ëpp nag waaye am na ñoo xam ne julli ji ajjuma it dañ fay dem di daanante ci ay toilettes seen toilette bu ci nekk bala ñu ko toilettu mooy sañse ni ñu koy waxee ci wolof balaa sañse bu xottee ndóbine bu yees ajjuma ja la koy njëkk a sol ñëpp gis ko mu door koo tàmbalee sol waaye siidee na ko bis yi ci des waaye yéenewu ko ajjuma ji waaye daa bëgg di wanu rek saa su nekk ñu ne kii mën a sañse waay loolu it ci digg seetaan la bokk taxul ñuy woote ajjuma waaye doon naa ko junj léegi am na ci ñoo xam ne mën naa am xetu yaram lañ am ndax ñàkk ñàkk fonk laal ndox am ñoo xam ne xet gi ñu yore xetu ñàkk fonk gémmiñ la waaye am ñoo xam ne ñàkk fay daal jullit ajjuma tax na yére yu leen neex yóbbu fa léeg-léeg kenn du nangoo daje dend ak moom moom it bu doonee ko xaw a luubu tuuti muy wan nit ñi ne leen jumaa ji du kër yaayi kenn du kër bàyyi kenn toog nu mu ko neexe buy taxaw taxawee nu mu ko neexe loolu it taxut ñuy woote julli ji aljuma mooy li ñuy wax ne mbedd mu mbeddum buur la wala mbedd mi kenn moomu ko ah kay lu kenn moomut amut loo gis rek bu toxoo ci moomeelu ko doomu aadama day dugg ci loo moomeelu suñu borom bi te moomeelu suñu borom bi dafa am dafa aaja ay teggin yu ëpp yi moomeelu nit ñi ñuy jox cër yellool yàlla na yàlla defal dégg ak topp. am na benn borom xam-xam bu mag bu nekkoon ci dëkk bi doon bind kat doon. maa ngi jàng mu ne ko loo jàng mu ne ko xam-xam mu ne ko loo jàng ci xam-xam muy lim di lim ba agsi ci fànn gii nga xam ne bokk na ci li ñuy waxtaane muy fiq al fiqul islaami yi mu ne ko fiq de moom moom aay naa ci lool mu ne ko loo ca gën a aay mu ne ko julli mu ne ko loo gën a aay ci julli mu ne ko julli kay fa muy tàmbalee ba fa muy yem loo ma ci laaj xam naa ko lu ci yàqu mën naa koo defar kilifa ga ne ko yow mën nga julli kon mu ne ko lool mu ne ko mën a julli nag nangoo jullee ko gën mën a julli lool nangoo julli moo ko gën kon jullig ajjuma lenn ci jullig ajjuma ngi noonu ma fàttali ko doonut foo xam ne dañ fay dem di fa barkeelu ji waaye dañuy dem di fa jaamu ji yàlla yàlla na yàlla nangul jullit yëpp seeni jaamu yàlla te boolu ñu musal ci pexe seytaane ak i pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin